bokk yi gannaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yépp ci xew-xew bu mag bii ñu jógee muy ak jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu joxoñu sunu boroom nag fu mu santaane ay jëf saa bu jàllee dinañ ci xam soppiku jamono lu ca waaye defoon mu xeeb ko soppiku jamono mooy suñu demee ba tool yi àgg lañ ca am ñu am ko ca ñi nga xam ne amuñu liggéey ca fañ doon liggéey ci nawet bi seenum xel day def day nekk ne safeet ba dem ci dëkk bu mag buñ yaakaar ne leneen lu ñuy liggéey am na fa lu bokkut ak tool yi fa lañ yaakaare am fa loo xam ne muy ëpp li ñu amee woon fii wala mu toll ni moom te du àgg ca lañ doon daj ci tool yi ab coono lañ ca bëgg a junj mooy amul taraanga yu nit di am di ca bànneexu te fekk kañ ñëwu ko bu fekkee fa mu ko war a jaar la fa jaar rawati nag bokk yi aljanna ji nga xam ne ku ne bëgg na saa dem te fa ñuy jaar ba dem fa sax kuñ ne yàlla nga fa jaar mu ne sama noon nga kuñ ne yàlla nga dem aljanna mu ne waaw amiin waaye nag boo ne ko yàlla na nga dee mu ne kii ñi ma gën a bañ ci la bokk te ni su demee ajal te deewoo kon ñii ñuy seenoo aw xew mu mel ne du masa agsi mukk mu jaral nit ñi lu ne bokk yi santaane suñu borom rek moo ko jaar ca la ak pay nekk pay gi suñu borom di fay nag nit ki ak pay lañ koy tudde waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne aljanna kii mënut a def lu ko fa yóbbu waaye nag soo déggee taran sama mbokk yi jaay soow suñ la defalee barce barce nga jox leen àndar ju fees ak suuna ñu ne tallal lu ñu toll ci soow léeg-léeg ñu jël kook su ndaw dolli ko ca te fekk waxaale waxaale wu leen ko woon sax dala ko dala ko jox nu mu ko mën a tudd rek bokkutoon ñu dëgg waaye xol bu set dala koy joxe kon boog santaane suñu borom moo mat a da wuy moo mat a wëy moo mat a dox jëm ndax léeg-léeg mu digle ak jaamu yàlla goo xam ne du ca sant du ca digge dara waaye ñi ko xam xam nañ ne daraam du neen fu mu ne jëm leen fa ku fa jëm gis la tax mu ne la jëm fa kon boog bokk yi ginnaaw dunduk adduna gii nga xam ne noor day ñëw ak nawet ku ne gis li noor bi ñoroon ak li nawet di ñoroon am na yoo xam ne ci nawet bi lay ñore am na yoo xam ne nawet day dem ba àgg ba jeex takk bañ bëgg koo fàtte mu soog a ñor kon ku ci nekk daa am waxtu bu mu soobee suñu boroom kon yaar yooyu ñor ci waxtu yooyu yëpp ku ca bëgg a ñorle fawu nga ji ko ji ko bàyyi ko yàlla waaye nag bis bu sa nga xëy ca la ca war nga di ko ca def di dajeeg yërmande suñu borom ak coobareem ba ma may mel na nga bëgg moo tax ne tugg di togglu kese te joxe woo dara mënut a yàgg wër ta mën a yàgg moom nis tuuti ña la ko doon defal tàmbalee tay yi daa am ku ñu gis suñ bu mag bi ne ko dama bëgg a xam kër gi li koy yor ci weer ma warlu ko weer wu ne ma indi ko sëriñ bi ne ko mbaa loolu du diis mu ne mën naa ko ndax li ma yore yàlla ma ko jox jaarale ko ci sa jëmm mu ne ko loolu sant naa la ci bu baax waaye nag danga may jëkk defal leen bis bu yàlla sàkk boo ko mënee tibbal gaalu suuf ci bitti ñëw sottal ma ko fii rek mu di ko def ba yàgg mu ne waaw di tibb suuf di jàll kepp ndax la ba yàgg mu tàmbalee am bis yu muy ñëw ak yu mu dul ñëw ba yàgg mu yebal doomam ba yàgg doom gi sax léeg-léeg mu ñëw du ñëw mu ne ko mbaa yaa nga ca mu ne ko waaw fan yi di nangam ak nangam mu ne ko diw tibb suuf sotti fee ku ko mënta saxal mbaa da nga mën a saxal leneen dal ku ne naan ndox rek moo mën a sax te du sàppi bis bu sa nga naan ndox dong moo mëntu sàppi lekk ak naan mooy ñooy ànd waaye lekk sax léeg-léeg nit ki soppi ci nam waaye du tee mu boole sa ndox mii mu doon naan démb bërki jam kon boog lu waay yaakaar na dox jëm ca di ko sabablu la ca des mu bàyyee kook yàlla ndax la yàlla teg dencal ko ñi nga xam ne dañuy góor góorlu kenn amu ko ñun su tabaski jub danañ tudd ndawal yàpp ndawal li ko moo doon bari na waaye yàpp la ñuy tudd naan dana am ak du am bu ñu yaakaaree ne dana am ñu naan la muy àndal te yàpp moomu ñu ciy séentu naan dana bari ak du bari ba xañ nit ñi jàmm ak la muy àndal lépp mbindeef suñu borom yaa moo koy joxe ba ñëpp ne ren moom ni mu mel musu koo mel denc na lu ëpp loola waaye yii ne ci kaw suuf képp ku ca bëgg da nga koy sababloo ci. wala boog nit sonn sonn ci sabab lu ko lool andit la ko waaye bu gisee defoo benn jéego it léegi tey mu tàmbalee tayal nit bu suuf di sotti kaa rek am na fi ñu wax ci alquran ne wa amdatnaahum bi fakihatin wa laxmin mimma yashtahoon foytéef yi dafay doy sëkk du am benn bis boo xam ne bi doo jëfandikoo foytéef bu beesul la weesu démb weesu na noonu la dund àllaaxira mel waaye laxmun maa yashtahu yàpp wa ngeen gën a bëgg bis bu set bu bees lay doon foofa jar naa sonn bokk yi wa faakihatin mimmaa yataxayyaruun daan ne su boobaa lii nit di daj di dagg garab gu ami doom ñii di ko gësam ñii di yéeg ñii di yor balaxu ñii di yor abraas yéen du leen ca fekk day sës rek ci seen blaaw foo nee nii rek bu ci sa xel demee nga daj ko wajanal jannatayni daanin xutuufaha daaniya suñ demee ba yëf yi bëgg a sàppi ñu naan lii de moo fi ñëwoon démb leneen ñëwaat lu ko dàq fuuf kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qaalu hada alladi ruziqna min qabl wa utuu bihi mutashabiha yadcuuna fiha bi kulli faakihatin aaminin laa yaduquuna fiha almawta illa almawtata alula dolli ca ne ukluha daaimun wa zilluha loolee ñu fay jëfandikoo du am benn yoon lii ñuy wax naan rupture daa am ci màngo wala ci xaal dafay sax ba faw du fa jeex mukk doo bu la soobee tam doo gis aw naaj mukk fu sedd ngay nekk lii ñu daj ba am fu sedd moo fa moo fa sax moom te doo fay facture foofu nag bokk yi ku ne xam na ne fii ci suñu àdduna ji képp dëkk ci yenn hôtel yu mag yi laaj na ab coono liggéey kañ bay bëgg a dee door faa mën a yàgg waxuma dëkk de waaye yàgg fa képp ngay mën waaye doo fa mën a dëkk xanaa boog kilifa joxe ndigal nga dëkk fa te kilifa gi it ndigalam la feeg mi ngi dund dong lay am bis bu xëyee xëy boo fa defee yenti at mu xëy xëy faatu wala mu folli ko dañ lay génne dinaa la karoon fay mënut a fay léegi wala nekkatu fi moo tax aljanna dem ca aajana kaññe aajana kaññe sa kem kattan la ci des yàlla àggale ko ku bëgg aljanna nag te du ko wut da koy tënk rek ci mi ngi dëkk dëkk sàngam loolu yomb na la yomb loolu de bokk yomb na lool dëkk dëkk sàngam teewut nit ki xëy di wuti di ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne sama xeet bépp aljanna lañ jëm ba mu des ku bañ ba mu ne aljanna lañ jëm dana am ñuy dem feneen te boobu ma nga Madina ak ñam ko doon waxal xanaa moom dëkk Madina fenn gënu ko war a xanaa ci tet ci taraanga waaye yonent bi tudd nañuy dem ëllëg feneen te dëkk ak moom Madina kullu ummati yadxuluna aljannata illa man aba sama xeet yépp aljanna lañ jëm ba mu des ku bañ qiila ya rasulallah wa man yaba ya rasulallah dem aljanna ni su koy bañe mu ne képp koo xam ne topp na ma ci tànk yi may doxe ak fii ma jëm fu ma teg sama tànk mu teg ko fa daxalal jannata waaye ku def leneen nag wala mu séentu lu gën a yomb leneen bañ na maanaam teggan yoon ma jëm aljanna man ataani daxalal jannata wa man asaani faqad aba sëñ bu mag bi wax ne ku yaakaar aljanna yi ëllëg te nanguwut a jaamu yàlla yoon wi ñu koy jaare ka ko ko wax nax na ko moom it nax na boppam rajaau jannatin bila taaati bi sunnatil maahi xururun yaati dem aljanna kon mbokk yi jar na wala moom rek moo jar xëccoo doonte yoon wu yaatu la waaye nag daa bari ay pakk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yoon wi jëm aljanna ay pakk kese moo ko nekk ci moo ko moo ko peeg ne ca pegg ya ne ci digg bi boo xool fi nga jaar da ngay fakkatal li fakkatale nag ci yoon wu jëm aljanna dañ lay wax lu la neex loolu loo xam ne da ngay tàyyal faam naan tàyyi naa ko fa ginnaaw noonu la demee noonu la demee te bokk yi man bokk lii ne ci ginnaaw miir bi mënu ma ko gis ka fa ne moo ma ko mën a wax waaye mënu ma gis ne ci ginnaaw miir ba kon boog bu ma mënta xam ñi ne ci biir fii ñoom ñëpp seeni tur seeni sant nu may xamale sa ginnaaw miir ba kon dem aljanna jar na lu nekk lu ko jar jar na ko waaye nag yoon wañ ko gën a yaakaaree mooy fa suñu borom joxoñ li nit dugg ci àdduna lu mu rëy rëy ak lu mu bari bareek lu mu yaatu yaatu ak nuñ ko ko mën a misaale ak lu mu mën a toll ci biir yaay it kuy dem fii la koy bàyyi du ko yóbbaale waaye yéen a jëm ci amoon ba mu koy wut lay yóbbaale ànd ak moom dem ak lam ca jot a jëfe ko su néew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na àdduna fa suñu boroom bu ko peese woon ak laafum yoo laafum yoo ma wat ko laafum yoo fa suñu boroom moo gën a diis fuuf àdduna ak li ci biiram loolu yomb na xam ndax bu yàggut ku ne xam na ni tonob wëteet ku ko jënd daañu la wax ana foo koy wàcce te kilo or bi nit di yor ci loxoom te du ko diisal mën na ko jënd jënd ay moroomam kon boog loo xam ne balaa nit kee faatu mën naa dem man loola mën naa dem bàyyi ko fi wala su guddee aw fan loola dem bàyyi ko fi wala mu dem bàyyi fa loola jërta kër kër yi lu koy tax amit jëru ko waaye fa nga xam ne ku fa dugg duutu génn te muy fa ku fa ñu gënal muy aljanna fu ko yàlla tudd naan xaalidiina fiha abadan xaalidiina doy na sëkk xaalidan doy na sëkk waaye abadan dolli wàcc daal di say teg ay barab yu wuute inna allaha indahu ajrun azim moo tax sëriñ bi ne wala kenn mën a dem aljanna dafa daan bakkanam day daw fu bakkanam jëm mu xëcc ko jëme ko feneen lu ko mooy rek bakkanam yóbbu ko feneen yàlla nañu ci yàlla musal yonent bi moo ne junj naa ko aljanna yoon was jëm bu bari pakk la ci digg yoon wi ay pakk peeg ko waaye yoon wa jëm feneen nag day nooy lool tàlli lool du am xur du am aw tund waaye day daw ba yàgg mu mun a sërëx ci biir day daw ba yàgg rek yoon wa jeex dañu ci yàlla musal moo tax suñ bi ne ku bëgg ëllëg teraanga juy sax ba faw na daw àdduna te kenn mënta daw àdduna te taqaliwut ak maanaam natut bakkanam borom bi firra min addunia ida lam takuni malika nafsika tasir dama ko nee na àdduna daf lay reeloo tey jii nga dem ba defe ne kek koo des lépp baax na lu la neex def lu la neex wax ndax gis naa ci mbind sëriñ bi nangam ni yàcc yàccaaral te moo ne léeg-léeg yitte am sow wala gànnaar wala saalum lu tax doone sëriñ bi indil ma loolee waaye dangay taal sa woto def ca dara ànd ak ña ngay àndal ngeen dem wuti loola la jënti loola la nga seeti ki ngeen bëgg a seeti lu tax koo bëgg a seeti wala mu bëgg mu bëgg mu fekk sa doone yàlla indil ma ko la sëriñ bi indil ma ko bokk yi nañ bàyyi yu nooy yi tudxiku tudxikuka alyawma wa tubkiika gada ma lam tabiha bien tulazim ragada day le daf lay reeloo tey ba nga defee ne yaa ca nekk nis tuuti mu teg la métit woo xam ne moom adduna da ngay da nga jooy ba ñu yaakaar ne kii duut noppi mukk moo tax mu ne loo ko jënd jëru ko soo bëggee ëllëg foo xam ne boo fa duggee dootoo génn kula minha xaytu situma raxada loo bëgg ma nga fa ku bëgg foofee da nga jaay àdduna jënde ko dal la ca teg ne lu leen seen bakkan digal bañ leen saa su nekk del tuumaal sa bakkan ne li may digal baaxul rek wa xaalifu nufusakum fii ma daat lahu ma atihaamiha fii ma daat am ku ne bakkan suy bëgg a génn àdduna day jeex day day jooy rawati nag buy dund ba yàlla yakkal boroom day defe ne du jeex mukk waaye su demee ba nga xam ne wóor na ko li ko dese bëreetu ci kaw suuf day jooy waa ji dana waa ji dana ko yëg wala waa ji du ko yëg li muy li muy li muy buy jooy bu ñu koy looy jooy daf ne xam day xam ne fii daal moom du fenn te man li ëpp ci li ma fi doon def xam naa ne jaarut yoon li ma fi ëpp ci li ma fi wax jaarut yoon daal di cay teg ne amul kër gu nit di fàggu dëkk ca xolom sedd wala wala xelam naq wala xolom naqari lu mu ca mën doon xolom sedd guy wala xolom ba naqari loolu te du ko mën a wax kenn rawati moo xam ne moo ko tabaxoon bokk yi ku nekk bitim réew du yónnee ne nañ ko defal kër gu mel nangam di yónnee di liggéey di yónnee ñëw fekk mu wax mu mel na mu ko santaane woon jërul mu naan mbooloo maa ngi sant ka ma ko tegoon ci loxoom ñëpp dañuy xam ne sant na bis ba muy sànc waaye su mu nit mu bëgg jërut mu naan kii sama xol tàng na ci moom ca bis ba muy sànc la koy xam ndax mën nañu yunnu ne paymet dem yoonam néew diw waxuma woon nag waxutoo mën a lii waaye am na ñooñu it dañu leen tabaxloo kër lu ca war ñu laaj ko te kaleñ ko tabaxloo bu ñëwee du fi fekk dara am na fi kon boog bala ñoo ak jàppante ay téere baat ci kii ma mujj a wax nañ jéem a dox suñu doxu bopp teg ko ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale la ca des ñu yéene ko suñu borom gàttal nañoo yërmande mooy fi muy fi may fi may wax seegi ne fa in fa in banaaha bi xayrin taaba maskanuhu wa in banaaha bi charrin xaaba baaniha yàlla nu yàlla musal seytaane ki pakkam te déggloo ñu njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sëriñ bi di ko baamoo ko baamuwaat jamono day soppiku ñépp a ko xam kenn ku ne am na lu muy waajal la muy waajal leen lu nekk dana ci def ak dana ko jox xaqam bala ca mën a sotti sotti la ca des mu jàppi ko bu beneenee bu beneenee waaye bokk yi ñoo xam ne fañ jëm jullit yëpp aljanna lañ bëgg a dem waaye yombut a dem fii ci kaw suuf si rek am na fii réew yoo xam ne yi ku def juróom-benni waxtu àgg wala yetti waxtu bokk waaye gis ngeen li ñuy daj ci dem fa te ci kaw suuf dong la nekk te ña fay dem dara wóor leen ci diw nga fa dong moo leen fay yóbbu te bokk yi jëm dem googu amul jafe-jafe nit mën na faa dem ñu jàpp ko ne ko amoo nangam ak nangam delloosi ko waaye fay nu jëm nag moom te aljanna nekk fa amul delloosi kenn garde à vue ku ay këyitam xaw a jaxasoo tuuti dañ ko naan toogal ne rek ilaa yawmi yub'athun yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin